salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax way leen di abonné te di activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal ngeen bokk ci ñu koy njëkk a gis dañu ñëw ci match Sénégal ak Guinée match actuellement zéro bi partout la match mi ngi ci 34 minutes euh, zéro bi partout instant donc match bi métti na lool euh, mais dañuy dem ci passe publicitaire ba ñëw doog a wax wax ci Pape Gueye mi nga xamante ne léegi. cat daf laa jàpp wala rab wala sa wër wërsëg tëju wala loo yor mu dem du taxaw say loxo. wala ngay lijeenti visa wala ngay lijeenti ay kayit muta wala nga sax nga bëgg sax si place wowal Serigne mohammed jaxté borom lasrar nga bëgg xaar wala set gu leer naññi sa bop taju xamoo lan moy xew si ëlëk wowal Serigne mohammed jaxté ci numéro boobu 78 201 82 44 boko wowe sa aajo dina faj voilà moo ngoog nuyu nañ kenn koy ci turam ak santam Sénégal actuellement marché bi mi ngi koy gérer. Euh, donc malgré que nous avons essayé de trouver une solution euh, que ça soit ci aile yi ou Ismaël wala Sarr ñi proposer dara quelque chose de xamantene euh, très convaincant et satisfaisant quoi euh, mais Guinée c'est une équipe très difficile à jouer et actuellement franchement Pape Gueye mi def match énorme franchement son leadership son charisme donc mi ngi imposé imposer ci terrain bi et voilà quoi mais actuellement position bu l'emplacement de moo xaw a gêné et je vous Sénégal quoi parce que pour moi euh, non plus plus moo waroon jouer sentinelle pas Gueye jouer milieu relayeur donc